laïcité ñu daal di fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moo occupé actualité bi ci semaine bi yëpp di coowal wàllum euh, pédophilie maanaam mag ñi nga xamante ni euh, dañuy sàkku gune yi viol yu bari yi euh, crise des valeurs bi nga xamante ni moom la ñu daal di nemmeeku coowal tamit boroom ñaari tur yi gis ngeen am na gannaaw visite bi nga xamante ni premier ministre bu Canada amal na ko file ci réewu Sénégal doon defa tamit beneen déclaration bu niro ak bu Barack Obama ci atu atum 2012 dégg ngeen njiitu réew mi li mu ko daal di tontu daañu ko waxtaanee ah, wàllum secte yi nga xamante ni gis nañ ni bari na ci euh, réew mi gis ngeen temps yi sax euh, benn phénomène bu ñuy wax affaire euh, Seyda Zaman moom dafa daal di ñëw ne ab prophète la ba mu defee bile déclaration am na ñu bari nag ñoo xamante ni génn nañ naan sax kii affaire u secte la wala sax affaire u maçonnerie ñenn ñi sax jàpp ni peut dafa daal di am ay problème ak tamit daañu waxtaanee. ne euh, maître coranique yi nga xamante ni ñu ngi leen di tudd ci ay scandale sexuel ak tamit yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaane ak kile euh, di Ababacar euh, Mboup ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm soxna si maa ngi lay fay di nuyu waa Rewmi FM yëpp fi nekk di nuyu aussi seen auditeurs yi ak auditrices yi di am mbégte aussi ci jotaay bi Mm-hmm. ngir waxtaanee ponk yooyu nga tudd. indi mm-hmm. ci ay leeral kem suñu kattan. voilà ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité bu baax a baax tey jii mu am kuréel gu ngeen teg euh, tuddee ko sàmm jikko yi kuréel googu lan moo ko tax a jóg exactement Ababacar Mboup. waaw ànd sàmm jikko yi comme tour bi ni mu ko indee. Mm-hmm. li ko tax a jóg mooy euh, dañu seetlu ni euh, de plus en plus. Euh, dafa mel ni jikko yi mi ngi tàmbali di mhm. yàqu mhm. Sénégal mhm. Euh, doy na ci nattukaay ah euh, mooy ñun suñu maam yi doonte ci ak ceddoo lañ nekkoon jamono yooyu ku ci mas a wax ak yow li la wax jaral na ko bakkanam gis nañ ci ñu bari ñoo xam ni seen bakkan baat bi ñu waxoon tax na leen ñu faatu maanaam kàddu am am kàddu seen kàddu bu naree soppiku faatu mu leen ko gënal ci fonk seen kàddu sénégalais ku ko xamoon xam nga ko ci loolu rawatina Sénégal lu démb actuellement sénégalais lu mu wax ak yow jusqu'à preuve du contraire euh, mën nga gis ne mën na soppeeku mhm. donc parfois sax luñ bind ci kayit sax mën nañ ko mën na soppi contrat waxuma laa wax nag mhm. xam nga loolu kon ça pose problème moo lay wax ni la kon am na lu ñu ñàkk ci diggante bi mhm. effectivement loolu lañ seetlu kon ni jikko yi euh, pour jox la misaal boobu rek mais mën nañ ci lim yeneen yu baree baree baree baree baree bare tey boo génnee nga xool circulation bi. Mm-hmm. ci ngay gis indiscipline boo xam ne si. Mm-hmm. da ngay e, jaaxle sax. Mm-hmm. lii lan moo ko waral ñàkk yar. te ñàkk yar boobu ak je m'en boo xam ne ak maa tey loolu foo mën a xool gis ko ci. boo xoolee ci état bi gis ko. boo xoolee demee ci administration bi gis ko. boo demee ci transport bi gis ko boo génnee ci mbedd mi gis ko boo demee ci kër yi gis ko foo mën a dem gis ko. loolu ci lañ gis ni kon ñun li taxoon kon ñu doon li ñu doon te nawoon ñoo ngi koy ñàkk. te li tax ñu ñàkk ko nag lu baree bari la véritablement donc euh, xëj na mën nañ ci ñëw waaye ñu ni nag kon doy na ci ñu jóg jéem a taxaw pour protéger lekk bi nga xam ni am nañ ko mhm. certes mu doon lu immatériel mhm. mënuñu ko téye ci loxo ni waaye mu doon loo xam ne mooy li ëpp solo ci nit ndax nit suñ koy wax jikko moo tax alors loolu moo tax ànd sàmm jikko yi jóg comme ni ko tur bi indee mhm. nañu fexe ba jikko yu baax yi nga xam ni bàyyil nañ ko fi muy suñuy diine muy euh, église bi muy diine l'islam ak lan suñu aada ci diine yu rafet yi nga xam ne amoon nañ ko mm. comme bi ma la wax léegi muy sàmm sàmm sa kàddu mm-hmm. euh, li nga wax mu doon dëggu ci yow mm. doo jëflante nit mukk fas yéene koo war ak yu demee noonu yooyu nañu fexe ba protéger ko ndax moo ñu gënal ay milliards mm-hmm. alors euh, gis nañ aussi ne y a un agenda boo xam ni Euh, parallèlement dafa mel ni ñoo ngi ko bëgg a imploser aussi àdduna bëgg a aligner réew yépp mhm. ak euh, société yépp ci loolu aussi mhm. te gis na ni loolu dëppawul ñun ak suñu ngëm-ngëm dëppawul ak suñu aada mhm. alors lii mooy li nga xam ne moo tax ñu ne kon nañu jóg taxawal kuréel gi mu euh, ëmb nag lu ëpp daanaka ñeen fukki kuréel actuellement ñoo xam ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir collectif ànd sàmm jikko yi muy ay association islamique muy ay société civile bi muy ay jeunes ay rappeurs. Mhm. ay euh, mouvement de femmes mouvement de jeunes et cetera donc ñoom ñoo ñi ko composé. Mhm. ndax gis nañ ni jikko moom mooy li jiitu ci mbir yëpp. Mm-hmm. su jikko yu yàqu réew mi li ñu ciy bëgg lépp du mën a gisoon nañu sax benn njiitu réew parce que euh, yaa ngi koy wax sànq ci ci kàddu ak euh, valeur bi nga xamante ni kàddu amoon na ko ci société jarul woon sax ñuy xaatim nañ dem signer contrat nañ ko bind ainsi de suite nit ki bu la joxoon kàddoom rek. wax nga ko sànq sax euh, teggi loolu sax faatu sax moo ko koy. gën mais gisoon nañ fi suñu ancien président doon wax ni maa waxoon waxet maanaam gis suñ président yi dañuy wax mbir euh, rajo yeeg télé yëpp enregistré ko ñu tegalaat leen ko sax boo ñu weddi ko. ñu ne génnaat nañ ci waaw ñu génnaat ci ba mu set. wecc xam nga loolu dafay tegtale kon soxna si ni. Mhm. réew mi kon am na lu ñàkk. Mhm. am na lu ñàkk ñu ñoo ko seetul mais am na soo gisee ma wax ci njiitu réew c'est parce que. voilà njiitu réew fa mu toll. ah absolument ci sénégalais yi la génn d'abord. Mhm. ensuite bu mënee dem ba jiite sénégalais yi aussi moo lay wax ni la sénégalais yi noonu lañ mel aussi. Mhm. en tout cas li ëpp mhm. loolu nag moo lay wax ni la kon góom bi góom bu metti la. feebar bi aussi feebar bu xoot la. mais yombul de li ngeen bëgg a def nii. non yombul waaye xam nga lu yomb aussi. lu yomb du du du pour pour euh, képp koo xam si bëgg nga nguur ak njàmbarte. ak taxawaay solo. Mm. du lu yomb ci ngay ci ngay taxaw. donc toujours défi la challenge la waaye dañ ci war a taxaw waxtu wu ci nekk. Mm-hmm. ndax bu ñu fàtte mukk ni réew mi. Mm-hmm. mais réew mi ay croyants ñoo fi dëkk. Mm-hmm. à quatre vingt dix pour cent. wala plus sax muy église bi muy euh, diine l'islam ay borom yi ngëm-ngëm lañu dafa am lu ñu gëm. alors askan wu mel noonu nag yaakaar naa ni ku dajeek ñoom waroo mën a bàyyi xel seen gëm-gëm yooyu gëm-gëm yooyu dafa am solo te ñoom li ñu gëm ñoomaase bokk les valeurs yooyu muy nit warta wax lu dul dëgg nit warut a woor nit dafa war a jub nit warul tooñ nit ñu la tooñee sax war nga mën a jéggale et cetera mm. donc voilà de valeurs yoo xam ne gis na ni actuellement malheureusement mu mm. ngi tàmbali chanceler ndax lan sénégalais quasiment li ñu gëm tey ji soxna si lan la mm. mais lii la xaalis la xaalis rek yàlla ji gën a rëy Sénégal xaalis la actuellement. noo def daal ba am noo def ba am xaalis noonu la te soo ko xisee xam loo wax am loo wax noonu la. looy bëgg a wax noonu la. loo def noonu la looy bëgg a def noonu la. Mm-hmm. donc dañ ñun fan lañ jëm actuellement. moo tax daal ngeen taxaw di ko xeex. absolument mais mais faaw ñu taxaw ci moowu laïcité. Hmm. parce que euh, nekk nga chercheur en laïcité. exactement lan lañ mën a dégg ci moo boobu parce que tamit. Euh, peut-être ni ñu ko mën a déggee bu ñu ne euh, le Sénégal est un pays laïque maanaam euh, musulman yi ñu ngi fii chrétiens yi ñu ngi fii ainsi de suite mais tamit am na ñuy ñoo xam bu ñu xuusee ba ci biir sax laïcité boobu am na neneen nuñ ko mën a tuddee mais lan lañ mën a dégg ci ci laïcité. voilà xam nga laïcité moom nit ñi li ci liñ ci wax bari na. Mhm. nit ñi aussi mën nañ ci wax lu bari kenn ku ci ne ak sa gis-gis. ak sa <coughs> mais. Euh, bu dee kenn ku ci ne dañuy bàyyi sa gis-gis nag véritablement duñ d'accord ci dara. Mhm. ndax ku ne ak ni nga ko gisee. mais laïcité pour nga mën ko comprendre <clears throat> baat bi d'abord da ngay gis ni euh, bu nu jë demee euh, en France. Mhm. ci dix-huitième siècle. Mhm. foofu la foofu la foofu la foofu la soqi ko. alors. <clears throat> booba xam nga France euh, euh, monarchie moo fa nekkoon. donc la dernier roi muy Louis XVI. Mm -hmm. ay jafe-jafe amee nag fekk na aussi booba ñoom ñuy collaborer ak diine booba aussi nga xam ne église ba moo fa nekkoon. Mm-hmm. véritablement ci la dem ba à partir de dix huit cent mille sept cent quatre vingt sept 1788 1789 il y a eu plusieurs révolutions yoo xam ne am na France muy la révolution des curés la révolution nobiliaire la révolution parlementaire révolution ba ci révolution populaire bi. Mm bi mu amee ils se sont dit léegi nañu toog. pouvoir bi nga xam ne royaume bi am na ko léegi dafa bari. Mm-hmm. dafa kii dañ koy wàññi. il mm-hmm. faudrait que nit ñi gis seen bopp ci li ñuy doxal. Mm-hmm. moo tax essayé nañ benn transition de trois ans yoo xam ni roi bi dañu wàññi ay dooleem bàyyi ko fa ba tey. ba malheureusement ça n'a pas marché en 1792 ñu rey ko. Louis XVI biñ ko reyee lañ taxawal laa république muy leen li ñëpp maase bokk mais dañ ko taxawal mu daanu. parce que mënul woon prospérer parce que xam nga ni France moo doon société bi gënoon gëm gëm. am ngëm-ngëm. ci Europe gépp ci Europe gépp France la woon. Mhm. maanaam foo xam ne poids dafa am. religion dafa amoon poids ñoo fa gënoon am doole mhm. d'ailleurs. Mhm. Euh, du hasard bu ñuy wax ne la France est la fille aînée de l'église. c'est pas un hasard. alors France googu dañu amoon ngëm-ngëm mais dañu gis ni bi ñu taxawalee la république sept ans sept ans la def daanu. 48 ans après ils sont république mu def 4 ans cette fois-ci daanu. alors les républicains les francs-maçons se sont dit mais qu'est-ce qui se passe mhm. pourquoi ñun boobu ba léegi ñoo ngi essayer di taxawal la république mais ça ne marche pas ils ont vu que Donc, effectivement république ak francs-maçons yi c'est absolument les francs-maçons ñoo taxawal la république alors euh, après ils se sont dit que mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi France mënuñu fa acclimater en fait la république mu taxaw mhm. ils ont vu que effectivement église moo am même mise ci nit ñi même les universités église bi moo ko moomoon moo xam Oxford la moo xam Milan la moo xam Paris et cetera. Mhm. la première université d'État en la am 1808 la wax c'est au 19e siècle mais avant loolu kon njàng mi la ko tàmbalee ci suuf ba ba ngay jeexal jàng. Mhm. non seulement programme bi église bi moo koy tëral mais ay labbe ñoo lay jàngal. te bu dimanche ci ñoom ngay dem ñu waar la. Mhm. mais kooku kon ñoo ëpp impact yow. alors ci lañ gis enjeu bi ne kon eng bi c'est éducatif. moo tax bi ñuy samp la troisième république en 1870. Mhm. effectivement dañu mener le combat contre l' église. Mhm. contre l' église laa la wax nag. mëne ko contre diine alors looloo tax ñoom Jules Ferry bi ñu ñëwee première euh, loi bi mu njëkk a dugal en 1881 ak 1882 c' était tout français. Mhm. à partir de sept ans ba treize ans obligatoirement da ngay jàng si. deuxièmement dañuy supprimer en fait l' instruction religieuse kenn dootul jàngale diine ci école yi. publique dañ koy supprimer remplacer ko par l' instruction civique et troisième élément bi mooy l' enseignement est gratuit alors quatre ans après il y a eu un de ses frères Loge mhm. muy René Goblet la loi Goblet moom aussi indi beneen loi muy le personnel enseignant même dootul bàyyi ko ci église bi day personne laïque lay doon looloo tax bi ñu defee à peu près moins de vingt ans bi ñu defee la loi de séparation ça a mhm. effectivement parce que français yi préparé nañ une génération boo xam ni effectivement ñoom inculqué nañ leneen lu bokkul ak li doon bàyyi ko ci diine mhm. n'est-ce pas mhm. looloo tax bi ñu ko seb defee la loi de séparation après quarante-huit séances à l'Assemblée effectivement euh, bi trois bi troisième république jeexee après la deuxième guerre mondiale 1946 la ñu njëkk a inscrire Mm. ci préambule constitution bu France. 1946 mm. pour la première fois. 58 ci lañ koy soog di def article constitutionnel te cette 58 là effectivement ci la ñu taxawoon aussi le projet de la communauté française Sénégal bokk ci ak les anciennes colonies ak France même constitution boobu ba moom laa tim ni mm-hmm. cette constitution la ci la ñu jëlee la constitution de 59 60 bi ba ci 63 ba ci constitution tey bi constitution boobu la daanaka amul lu ci soppeeku. Mm-hmm. daanaka mm-hmm. fondamentaux yi dafa de donc c' tout simplement lan njaaxaar lay wax mais c' faux. c' est anti dafay xeex dafay xeex diine. absolument c' était c' en fait dañu soulever woon ce combat là contre l' église laa la wax nii. Mm-hmm. effectivement mm. te loolu boo demee ci ay Jean Bobéro ñoom ñëpp ils ils l'ont ils l'ont dit de manière en fait claire explicite et limpide mm. donc euh, loolu moom lu ñuy discu lu ñuy lu ñuy discuter sax amu ci mm. donc man je pense que kon alors sooy comprendre soo bëgg comprendre la laïcité il faut nga dellu France mm-hmm. di nga xam ne ñoom ñoo ko sos mm-hmm. fent ko ba noppi ñooñu ko imposé aussi bu ñu fàtte lool mhm. ñooñu ko imposé am nañu naan laïcité religion la loolu ci wax voilà absolument que religion la religion la de religion mooy lan mooy ngëm-ngëm ban genre religion religion maçonnique ak ban genre ngëm-ngëm c'est <clears throat> parce que créée tout simplement par les maçons est-ce xam nga ni laïcité boo xoolee ñoom maçon yi en fait dafa am mode opérandi bu ñuy am d'ailleurs dafa baat bi sax dañ ko abbe ci église bi lañ ko abbe parce que laïque bul fàtte ni en fait euh, dans l'église en fait euh, l'église dafa am ñaari euh, xeeti adeptes yu ci nekk. Mm-hmm. ñenn ñi ñooy sëriñ si mooy le clergé ñi des en fait c'est ce sont les laïcs. Mm-hmm. actuellement Sénégal boo ñëwee église catholique. donc monseigneur moom moo jiite église bi yëpp. Mm-hmm. mais les laïcs catholiques am nañ ku leen jiite ku bokkul ak en fait le monseigneur. donc moo tax bi ñu leen di xeex aussi ñu kokkali leen baat bi ci ñoom lañ ko jëlee laïc. ak la cité. Mm-hmm. laïciser en fait la la, la cité. Mm-hmm. donc voilà c'est composé de mots day am et, cité cité donc. Euh, donc mu nekk loo xam tëggee nañ ko France. absolument imposé ñu ko Sénégal même fii au Sénégal. actuellement parce que moom la euh, euh, maanaam fëggee suñu dënd. le Sénégal est un pays laïque. mais laïque laïque xam nga laïque boobu sax ñun mm-hmm. fi mu jox ñu ko contenu. exactement joxuñu wax na ci. ni woy c'est pas antireligieux Abdou Diouf wax na ci ni woy c'est pas antireligieux Wade bi ñëwee moom amoon na ci beneen gis-gis. Mhm. Euh, Macky aussi kenn ku nekk yaay ñoo xool peut-être ni nga gisee. vu le contexte peut-être wax ci mais ñun joxuñu ko un contenu bu hmm. bu clair mais sénégalais yi ni ñu ko jàppee mooy euh, pays laïque boo xam ni musulmans yi chrétiens yi ku nekk daal yaa ngi sa diine di ko euh, dund normalement mais loolu man je dis que non c'est pas vrai perception boobu lañ am si laïcité man loolu je dis que noonu hmm. Hmm. man musulman la julit la mais man lay laïcité bi ça me gêne ça me gêne d'autant plus que ni en fait dafay nan ma léegi puisque euh, diine yu bari dafi nekk léegi moom dafay neutre la neutralité n'existe pas est-ce que nag laïcité boobu mayul fa euh, mayul woon fit franc-maçon yi ba war fi ñëw def seen ah, euh, daje ainsi de suite parce que gis nañ seen communiqué bi bi ñu tëggee loolu la ñu wax <laughs> mais absolument voilà ah, foofu réew démocratie la voilà on a le droit et tout mooy fourre bi ma lay wax nii rek xam nga par exemple tey man fi ma fi ma laïcité di gêner mhm. premier euh, aspect bi mooy man en tant que croyant mu leer ma ni benn kilifa la am mu yàlla mi ma bind mhm. moo ma bind moo may moo may dekkalaat ëllëg man gëm naa loolu. Mhm. te gis naa ni sénégalais yi ëpp sénégalais yi gëm nañ loolu aussi. Mhm. laïcité day dox sama digganteeg loolu. Mhm. fi nekk nii ni ma attention mënoo am genn kilifa mu yàlla il faut nga am geneen kilifa muy république bi. n'est-ce su ma xëyee léegi ni jóg ni kat man am na noo xam ne tey su ma demoon ci euh, euh, wàllu euh, njaboot. famille. takk soxna. fase par exemple héritage yu demee noonu su ma bëggee dellu ci sama diine ñu ni ma non non gis nga kon fi may indil problème. Mhm. donc man na maa def ni ma woy effectivement demal ci sa jàkk nga noddu julli génn waaye nag quand il s'agit en fait du code de la famille. nag dañuy jëli ay yeneen loi yoo xam ne dafa ak li nga gëm. Mhm. mooy man danaa gëm ni rek comme ni ko benn waay doon waxee mais nag euh, du ma pratiquer li ma. pose problème euh, mhm. ça pose problème li ñuy invoqué nag mooy woy af diine yu bari daf fi nekk mais l'islam musul am problème boobu. moom mi nga xam ne moom majoritaire Sénégal musul am problème ndax lakum diinukum waliy diin actuellement su fekkonte ni démocratie la ñuy doxal julli ci ëpp fi solo seen loolu war na ci fen mm. te gis nga bu boobaa ci la catholique yi gën a nekk en sécurité ci la keneen di gën a nekk en sécurité ndax l'islam de son point de vue moom du contraindre kenn ci dara. Mm. kenn ku ci nekk dañ lay bàyyi ci li nga gëm. mais nag jullit yi aussi dañ leen war a bàyyi ñu doxal li ñu gëm. Mhm. effectivement voilà mu am nekk beneen euh, question d' actualité euh, coow loo xam ne sax léegi waxatuma sax question d' actualité mais dafa nekk question boo xamante ni léegi chaque jour chaque jour que jëfee ñu ngi ciy wax en tout cas médias yi ñu ngi ciy wax muy la question euh, d' homosexualité gis nga temps yi scandale yi bari am gis nga homosexuels yi nit ñi fësalee seen bopp ci réseaux sociaux yi gis nga peut-être nit ñi amee doole à partir de l' et tout gis nañu tamit le le le premier ministre canadien euh, Justin Trudeau ñëw na fi euh, pratiquement même scénario moo am par rapport ak visite bi nga xamante ni Barack Obama amaloon na ko fii au Sénégal en 2012. bi mu ñëwee Trudeau gis nañ ni benn journaliste canadien posé na euh, le premier ministre canadien la question sur l'homosexualité maanaam kañ la ñuy bàyyi góor jigéen ñi fii firi mën di marié wu wala ainsi de suite nga gis premier ministre canadien bi tontu na. njiitu réew mi la mu tontu nag euh, ak la mu tontu woon Barack Obama pratiquement euh, ñoo niro maanaam euh, réew mi pareegul pour teggi li nga xamante ni mooy loi boobu di xeex wala di sax gor li lee di wàllum homosexualité maanaam munuñ ko légalisé munuñ leen a bàyyi ñu fiy takkante comme la am France Amérique ak yeneen mm. réew sax ci Afrique mm. naka nga gisee yow tontu bu njiitu réewu Sénégal est-ce que doy na la wala doyu la parce que ba léegi sax tontu bi créé waat na beneen polémique parce que nee nañ leerul leer na si yow wala leerul li mu wax par rapport ak question homosexualité bi nga xamante ni fii ñu toll nii carrément dañ ko teg ci ci ci table bi. mais Macky Sall li mu wax leer na. Mhm. d'abord li may wax mooy ni amul mhm. benn loi buy tere homosexualité fii ci Sénégal. amul amul. ah, ah bon. ah wax ma ko amul. y' a pas de loi Macky wax na ko ci intervention en français. Mhm. il y a en fait il a insinué ni euh, la loi interdise en tout cas le code code boobu muy wax ban code la. Mhm. loi bi muy wax ban loi la. li am Sénégal en fait c' <coughs> ci en tout cas le code pénal bi. Mhm. c' est le article la te acte contre nature lay wax. acte contre nature bi boo xoolee la délégation sénégalaise bi demoon ci comité des droits de l'homme des nations unies. ñoom niñ ko gisee moom mooy acte contre en public. tant que ñu koy def seen biir ne dans ko génnee def ko ci penc bi moom ça pose problème loolu attentat à la pudeur. Mhm. tey man su ma yoroon sama soxna génn ci mbedd mi nii bëgg accoupler ak moom. Mhm, mais mhm. la xam nga loolu kon kenn xamul lu mu doon gis nga Macky saal li mu wax lu leer la. Macky dafa tàmbali bu dee ci wolof la. man damay wax ni euh, visite kii bi seen tête à bi ak euh, conférence euh, conjointe bi. dafa am trois euh, niveaux yu ci am trois phases. Mhm. tête à bi la ñu waxante man xaw ma ko. Mhm. mais quand même boo déggoo seen discours. da nga ci am ay aperçu parce que na ko wax nañ ci. Ah, wax naa ci ak njiitu réew wax naa ci mhm. mais la mu ko wax xam nga waxuñu ko. waxul lan la ko wax Macky aussi tontu na mais. Euh, ci tontoom mën nga cee jëlee xëj na ay ay ay gis-gis nii rek ci lan lañ war a waxante mais xamuñu réellement ce qu'ils se sont dit. loolu c'est un deuxième élément mooy conférence conjointe bi dafa mujjee wax ci olof. olof la mujjee wax. li mu wax ci la mu wax ci français mais li mu wax ci français moo posé problème parce que olof bi sénégalais lay waxal. mais li mu wax ci français am na yeneen sénégalais effectivement parce que man sénégalais la dégg nañ li mu wax gis nga discours bi. déglu bindal bindal sama bopp. Mm. mais gis nga Macky dafa tàmbalee ci. Mm-hmm. wane ni moom respecté na Trudeau li mu nekk. Mm-hmm. Euh, euh, defenseur des droits la. des mm-hmm. droits kese la wax aussi. moom tamit défenseur de droits la tamit défenseur des droits la mais nag suñu réew. véritablement dafa am ay normes yoo xam ni moo ko régir mu bàyyi ko ci suñu aada ak suñu cosaan te loolu mooy tegtale mooy takk ndeer na reflet la wax mooy takk ndeeru fi mu nekk nii suñu dundiin ak suñu nekkin n'est-ce pas mu teg ci ni euh, waaye nag terewul li mënul nekk te gis nga soxna si nit ñi dañu dégluwul Macky Sall mhm. li mënul nekk mooy ñëw demander Sénégal ni ko suba mhm. parce que deme la wax mhm. deme boobu nag mën nañ ko déggee ñaari yoon deme mooy suba mais deme boobu mooy procédure d'urgence quoi nañ ko def ci lu ci lu yàggatul mën ñu demander Sénégal ni ko deme da ngay légaliser euh, homosexualité mën ñu demander deme aussi ni ñu véritablement ay gay parade da am lii la wax mu ni lool ça c'est maanaam gay pride sa ko ci biir. effectivement. Mm-hmm. dafa ni ko mënuñ leen ñu demander demee. Mm-hmm. ni ñu xoolal euh, mais on ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire euh, demain on légalise l'homosexualité et demain c'est les gay pride et cetera mmh. ça ce n'est pas possible parce que la société ne l'accepte pas xam nga loolu lu leer la ak société bi noo ko accepté parce que parewuñ ci loolu xamuñu ko moo tax mu ni ko loolu mënuñu leen ñu demander ni ñu demee da ngeen koy légaliser demee ay gay pride am fi. Mm-hmm. mais il poursuit. Mm-hmm. xam nga loolu lu leer la. Mm-hmm. mais il poursuit mu ni ko mais nag la société elle doit. elle doit daal di couper li mu doon wax. daal ni elle va évoluer. évolution boobu. fan la elle va fan la. elle la njëkk a wax daal ni elle va évoluer évolution boobu fan la. parce que il parle de société. une société qui n'est pas encore prête. Mm -hmm. pour légaliser ak accepter des gay pride. mais dana évoluer. Mhm. mais mooy li mu waxoon Obama rek c'est la même chose. Mhm. léegi cette société va évoluer dans quel sens. ak lan mooy tax mu évoluer sera prête mais exactement loolu la. Mhm. moo tax mu ni elle va évoluer mais ça prendra le temps que ça prendra. évolution boobu. laaj na ay waxtu laaj na temps il faut mu jël temps boobu. mënu leen tey demander ñu. dama bëgg doom mm. mais tey lay takk yaayam mu ëmb tey imbusin tey ñu jox ko kii mu màgg tey c'est pas mm. possible mm. c'est ça que Macky a dit il faut donner du temps du temps di donner du temps euh, au temps xam nga loolu véritablement man je pense que ni moo tax man c'est flou encore non li mu wax leer na <laughs> may leen ma tuuti la wax may leen ma du temps ensuite bu ñu ko mayee du temps lan lay wax mais leen yi même dans les pays du nord yéen cette question là n'est pas totalement épuisée yéen a ngi ci discuter ba tey mm-hmm. est-ce que yaa ngi comprendre kon li fi Macky di wax. exactement même yéen cette question yéen a ngi koy discuter dans les, les pays du Nord. donc on ne peut pas avoir une vision globale du monde où tous les euh, pays pensent la même chose et font la même chose ce n'est pas possible yooyu la wax ni ce n'est pas possible. Mm-hmm. mais nag ah. il est bon que les gens échangent sensibilisent. Mm -hmm. gis nga mode opérandi bi mi ko tàmbalee wax. il est bon que les gens échangent nañu waxtaan. Mm-hmm. nañu sensibiliser sensibiliser c'est quoi mm-hmm. mooy nit koo xam ne si ubbeekuwul ci dara wala xamul dara en fait ñu ubbi ko mm-hmm. sensibiliser ko pour man ko may cette ouverture d'esprit <laughs> les gens échangent sensibilisent daal ne eh, les sociétés évolueront à leur rythme Sénégal dafa am rythme d'ailleurs nee na toujours dama koy wax ni chaque pays a son propre métabolisme kon nañ ñu may aussi ñun ni ñu war a doxe ak ni ñu mën a doxee ñu doxe ko bay mën a àgg ci loolu ubbeeku googu c'est donc ça mu ni le problème li ngeen bëgg mooy ni ko jàmpale il faudrait que les gens réécoutent encore mmh. euh, euh le discours de Macky mmh. mu ni au Sénégal nous sommes à l'aise avec nos lois sur ce plan mmh. et nous allons poursuivre n'est-ce pas cette politique mmh. cette politique ça veut dire quoi qu'est-ce qui qui c'est qui est nous nous mooy kan nous non moom y compris kon moom ci la bokk peut-être l'État du Sénégal ils vont poursuivre quoi cette politique ban politique ban politique lay wax Hein? En tout cas pour l'instant pour l'instant c'est ça qui est en vigueur au Sénégal. te mi ngi wax ni sax fii amul homophobie. loolu la njëkk wax quoi daan ni suñu ñun suñu suñu suñu suñu aada ak loolu firiwul ni en fait. on est homophobe et cetera mais dangay gis ni kon Macky bi mu waxee ba pare <clears throat> ubbil na leen ay bunt may leen ni leen ni ngeen jàmpale affaire bi. kon on comprend par là que. effectivement dañu et procédure d'urgence lañ leen waxoon ni leen il faut ngeen légaliser nag cette cette cette chose la ah voilà donc loolu xam nga da ngay da ngay poser problème moo tax man la Macky Sall li mu wax lu leer la accordez-moi du temps la leen wax te loolu dama la ci jox ay firnde gis nga le les le les le euh, euh, on appelle encore <coughs> les commentaires sont libres mais les faits moom sont sont sacrés le faits. Mm-hmm. gis nga wax ak jëf bu amee nit ki moo wax moo jëf bu bu fekkente ni yëpp dëppoo na li mu waxoon la def. Mm-hmm. kooku nit a ngi noonu. Mm-hmm. mais su fekkente ni ñaari dafa wute dañuy bàyyi li mu wax te tey li mu jëf. Mm-hmm. d' abord Macky Sall <clears throat> man li lay wax ni la même bu fekkoon bu ñëw mu catégorique. yaa ngi rappelé wu euh, veille élection présidentielle yi mhm. amul seen benn nattangoo bu ko posé benn question mhm. ci problème boo xam ni en fait euh, le maintien du ministre de l'intérieur man na ko woon lan la ko tontu mhm. du ma ko def du ko def quand il veut être en fait intransigeant sur une question il il sait le faire ma ko def du ma ko def du ma ko def alors pourquoi amul woon wax loolu mais dama la même su waxoon loolu fii man damay gis ni ay jëfam daf ko weddi xam nga pourquoi lu tax voilà la première chose mooy <coughs> d'abord Macky Sall pour la première fois bi Sénégal di Sénégal ba tey moom moo njëkk a ci constitution bi des nouveaux droits des nouveaux droits c'est là quoi man beneen lakk jànguma ko mais français man man moom laa jàng nouveaux droit c'est des droits qui n'existaient pas auparavant ba bi ñuy dem 2016 yan droit la sénégalais yi amuloon suuf si Mm-hmm. demal fu la neex caajaay mbir kilaan fu la mën a deex boo fa demee bëgg dëkk danga am ci koo jaar ñun la mu daggal la mm-hmm. boo demee ci tool yi bëgg bay danga nga am ci koy jaar ñun la ñii ñoom ñoo moomoon tool yi naka jekk sénégalais yi ñoo moom suuf si sénégalais yi dañ daan wax seen xalaat sénégalais yi dañuy tukki dañuy bay dañuy napp dañuy def leneen kon yan ak yelleef la sénégalais amagul yu yees yu ñu leen war a bindal ay nouveau droit mhm. et pourtant il l'a inscrit dans la constitution ci référendum 2000 boo fàttaliku 2016 bi mhm. muy benn élément deuxième élément c'est Macky Sall qui pour la première fois au Sénégal a créé un ministère du genre le genre c'est quoi le genre bu fekkente ni dafa jëm ci par exemple toppatoo mbiru jigéen ñi ñu fexe ñu jàng. Mm. ñu fexe ba euh, dugal leen ci yi fu góor mën a taxaw ñu taxaw fa ñu fexe ba def seen promotion ñu euh, génne lu baax ak xarañte gi nga xam ne jigéen ñi mën nañ ko. Mm. am nañ ko. Mm-hmm. mais c'est que ministère de la femme mën na régler kan la ci kan la jëm. ministère de la femme mmh. mais quand on me parle ministère de la femme de la famille et du genre, et du genre. mais quand même un problème mm-hmm. yamul ci loolu Macky Sall pour la première fois suñu permis de conduire ak yenn papier administratif yu bari actuellement def ci genre Mm-hmm. donc il est en train de poser des actes Macky Sall. ah donc gis nga deman la lu ma mënoon wax aussi il est en train de poser des actes yemul ci loolu Macky Sall euh, le fameux article 319 bi ñuy wax ni mm-hmm. bi euh, condamné en fait incriminé euh, les actes contre nature mais Macky Sall daf ko naroon changé ci la loi là. Mm la loi <laughs> euh, sur la pédophilie et mais ci lañ profité bëggoon changer en fait disposition mooy bi ne dañuy criminaliser viol. viol mhm. même loi boobu. Mhm. ci lañ bëggoon a dugal maintenant en fait article bi. Mhm. pour soppi ko. nga xam ne dañ doon ramener âge bi à ans. nga xam ni kon acte contre nature bi léegi bu dee ci ku amul 18 ans rek ci la yoon di dal sa kaw. pourtant loolu la doon def. ñu était la vigilance de Mamadou Lamine Diallo que je salue au passage. moo leen soulever ce point là en en ñu coow ci gars yi demandé pause une heure trente minutes dem euh, euh, informer Macky Macky ni leen finalement gars yi kon xam naa danañu jaxase ak askan wi retiré leen ko. Mhm. terewul bi ñu ñëw en plénière ëndaalee nañ ko. Mhm. ba député yu bari jóg ni leen lii duñ ko seetaan ko ko fi def. mais pourquoi ñu bëggoon a choppandi cette disposition là. cette dindi ko. dindi ko ko yëg ramené ko ko yëg. Mhm. beneen bi en fait le code de la presse là. biñ koy dugal mais ci douzième législature euh, bàyyi ba un mois dix jours euh, des élections législatives ci la ñu yóbbu en fait le euh, cote à l'assemblée ba noppi glissé ci benn disposition boo xam ne bokku ci woon parce que man discuté naa ci ak ay députés yu bari. Mhm. yoo xam ne ñoom travaillé nañ ci code bi parce que le code la xam nga c'était sous Wade. Mhm. depuis Wade la woon. Mhm. alors ñoom li ñu wax mooy di article bi bokku ci woon te article bi day wax clairement ni ñoo ngi suggérer di tere journalistes yi ak techniciens de médias yi ci bind wax ak nataal ñuy mel ni kuy tudd ñi nga xam ne dañoo am ay orientation sexuelle yu wuute mais loolu c'est contraire à la constitution parce que la constitution amul orientation sexuelle alors cette disposition là ku ko dugal kon xam nga ni yaa ngi defal agenda gay bi ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay avancé donc loolu moo tax ma ni la Macky lu mënoon a wax laa wax man maa ngi koy atte ci li muy jëf te li muy jëf gis naa ni mi ngi leen ubbil ay bunt ñu ngi avancé. ñu ngi avancé euh, kon yaakaar naa ni leer na euh, beneen bi tamit dinañ la laaj euh, Ababacar Mboup mu nekk beneen question d'actualité laalaat encore li nga xamante ni mooy crise des valeurs bi ñuy dund pédophilie bari na ci maanaam mag ñi nga xam ne dañuy sàkku gune yi ay mag yu góor sax yuy sàkku ay gune yu ndaw ak ak viol c'est lié ñu ci cité fan yi ay maître coranique gis nga tamit cité nañ ci sax koo xamante ni. dafa euh, dafa nekk ci euh, administration benn club football ainsi de suite koo xamante dañu ko en tout cas dañ leen a accusé euh, ne dañuy tëdd ak xale yi ainsi de suite encore muy ñëwaat ci wàllum pédophilie ñëwaat ci wàllum viole ñëwaat encore ci wàllum homosexualité yéen lan ngeen ciy wax. bon en fait déjà lu ñu naqarlu. Mhm. vraiment di ko méttitlu parce que xam nga des bouts de bois de Dieu xale. Mhm. ak innocence boobu. Mhm. ko xamul dara. nga jël ko xamagul dara ci àdduna. nga njëkkee lu ci moom. Mhm. nga xam ne daf koy topp traumatisme sa vie durant. Mhm. ba noppi yaa ngi koy tàmmal loo xam ne si mën naa am bu bu moytul. Mhm. loolu mën naa tax mu mu mujj doon euh, homosexuel wala leneen te kan lañ koy kan moo ko def koo xam ne nee nañ mag la surtout bu fekkente ni jóge na ci daara surtout laa wax bu fekkee jóge na ci daara parce que daara xam nga dañu ki ko jël yóbbu fa doomam. mais dafa bëgg doomam boobu non seulement xam wax yàlla. xam li yàlla bëgg mais jëlee fa kon ku ñu yaakaar ci yow loolu ba noppi nga def la contraire ci moom. Mm-hmm. mais kooku dama la peine bu ñu mën a teg keneen yow le duub lañ la war a teg. en tout cas ñu ngi koy remercier bu baax a baax ki lay di Ababacar Mboup nekk coordonnateur euh, bu kuréel gi lay di ànd sàmm sàmm euh, jikko yi nekk tamit chercheur spécialiste euh, de la laïcité di remercier auditeurs yi ak internautes yi nga xamante ni ñooy ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diaw Diallo ci wàllum technique bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa jëf